ñu ngi am mbégte dalal euh, ci matinalu tey bi Mballo Dia Thiam mooy euh, njiital euh, alliance de Gueusseum di itam secretaire général bu SUTSAS ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinal bi sëñ bi Thiam waaw maa ngi lay fay euh, Adja Fatou Thiam Ngom nuyu ñëpp ñu xam ne ñu ñu ngi déglu ci seen rajo boobule mm-hmm. di nuyu tamit liggéeykat yëpp yi nekk ci Sénégal ak ci àddina bi. Mm-hmm. alors gannaaw euh, gerew bi juróon coow euh, njeextalu ay bés bi ñu génn te ñi yëngu ci wàllu wérgu yaram bëggoon ci jàppale ñañu teg loxo ci mbiram astu soxna daal na ñuy tàmbaliwaat beneen gerewu ñaari fan lan moo waral loolu. waaw ñun de suñu alliance mi ngi tudd ànd ñun grève boobu lay soxluñu donc du suñu grève donc moo tax euh, mënuma ci sori hmm. ñun daal euh, li am solo si te ñu jàpp ko mooy dañoo nekkoon ci plan d'action boo xamee ni dañoo waroon def grève ñetti fan mooy vingt vingt et un vingt deux avril bi dëgmal tamit euh, beneen tooxaay doogaanu ñaxtu ju ñaar fukki fan ak juróom-ñaar euh, si weeru avril bi benn toogaanu ñaxtu bu ñeenti waxtu quatre heures de temps de dix heures à quatorze heures dëgmal tamit beneen grève boo xam ni ci weeru avril bi lañ koy def mooy juróomi ñeenti fan juróomi fan ak juróom-benn fan ci weeru ci weeru ci daal di def xayma bi euh, juróom-ñaari fan ci weeru mai ab samedi lay doon. Hmm. ba tax na nag <laughs> euh, après fekk na aussi ñeneen tamit daal di programmer eh, seen grève le vingt et un euh, donc le 21 nag euh, mu nekk su mboxloo boo xam ne ñëpp dajaloo nañu foofu maanaam dafa mel ni daal affaire yi dafa dajaloo le 21 mai waaw léegi nag euh, ak euh, li nga xam ni xew na ci yëpp ci réew mi hmm. donc kilo loolu lañ nekkoon dafa fekkoon ñu nekk suñu yoon. kon dafa tombe rek waaye ànd gësam jotewul dara ak grève yi amoon ak bii am tey. ñun daal pré prévoir nañu suñu grève daal vingt vingt et un vingt deux. Hmm. parce que dañoo pré dañoo defoon benn dañoo génnoon ci beneen grève bu ko jiitu mooy trente trente et un ak premier avril. Hmm. donc ñun ci suñu ay plan d' action nekkoon te xam nga ni daaw jéeg deux mille dix huit. defoon nañu ba fukki juróom-benn fukki plan d'action ak juróom-benn seize plan d'action avant nguur gi président de la République ñu woo pour régler mbir yooyu. Hmm. donc ñun ñun ci lu ci boobu lañ nekkoon par yàlla lii affaire yi daba dabaat ñu wante nag dinañu dinañu soutenir aussi suñu camarades yi nga xam ne jàpp nañ leen wante grève bi bu ñu koy grève affaire sage-femme yooyu tax ñu tax lu woon jóg. Hmm. waaw mais gis nañ leen seen wet ngeen di leen jàppale. waaw parce que xam nga ñun dafa dajal dafa dajaloo mais ñun saa yu ñu grève euh, ànd gësëm même bul ànd gësëm sur ça saa yu ñu grève dañuy def le respect des urgences et du service minimum ñun loolu lañ koy doxalee tout le temps malheureusement nag grève bi am na leen xam ne xëy na boole nañ ko ci te war ci woon bokk moo tax mu indi coow yooyu yëpp ba na nag il faut que loolu mu leer ba fu mu nekk nii même suba gannaaw euh, le vingt sept mooy bis bi ñu jàppoon pour def sitting national far hmm. yàlla jàpp nañ ko bien avant que tribunal di fixer maanaam bis boobu pour mu nekk bisu layoo hmm. te comme ni ma gisee man dem naa Louga fekk naa leen bi ñu leen doon auditionné ba kii ñu mujjee déglu ci sama mbag yi sax la jooy ba sonn parce que aussi bokkoon na ci ñi ñi nekkoon foofu wan wan lor sax hmm. yaa ngi jël naa avocat aussi pour ñoom donc loolu moo ñu war parce que boo nekkee sa njaboot ñu nekk ci njàqare donc da nga leen jàpp waaye nag sage femme yi dañoo nekk suñu biir comme infirmier yi comme médecin yi comme ñëpp dañoo nekk suñu biir hmm. waaw donc loolu moo waraloon ñu ne nag léegi le vingt set bii comme que ñun dañoo jàpp piso cité nationale hmm. léegi te comme da dañ dañuy layoo foofu ak sage femme yi dañuy layoo léegi nag ñu ne dañuy dem dem dem dem dem Louga taxawu leen daal di nekk seen wet taxawu leen waaye nag nekk ñu taxawaayu grève ñun laaw ànd ak sam de mm-hmm. taxawuñu taxawaayu grève mm-hmm. taxawuñu taxawaay bu nga xam ne parce que du bisu grève bisu sitting la mm-hmm. taxawuñu taxawaayu grève parce que bëgguñu won euh, euh, sénégalais yi que ñun bëgguñu dëgg bi feeñ wala ñu ñu yaakaar ni dañoo bëgg a teg pression ci tribunal bi pour que li mu war a def du ko def ñun daal bëgg nañ daal ñi nga xam ne war nañ leen déglu ñu déglu leen ah ñoom tam ci boobu bisu layoo bi ku nekk dana wax lan la juge bi nag mooy wax ndax amoon na négligence wala amul négligence pour ñun juge moo ko war a amul keneen ko war a wax ku dul kooku. d'accord justement euh, ci foofu laa lay laajee ndax grève bi agent de santé yi décrété jàpp nga ne lu war la ndaxte wax nga ko euh, barki démb am na ci ñoo xam ne sax taxawu buñ leen euh, ca hôpital Fann wax nañu ne am na ku ñàkk bakkanam ndax grève bi moo tax xëy na faalewuñu ko feneen ak feneen ay jigéen ñëw pour mucc ñu gàntal leen ba ñu mujjee yóbbu leen feneen fu sori mbiram lu mel ni li dal astu soxna xajoon est-ce que jàpp nga ne kuy faj lii di taxawaay bi war na ko ah, en tout cas mënu ah, ah, ma wax ne yëpp kere euh, bi moo ko andi ndaxte pour affaire hôpital Fann boobu dégg nañu directeur bi daal ne loolu taxalul dara ak grève bi hmm. euh, donc loolu directeur hôpital Fann wax na ko wante li am solo mooy ñun bu ñu soxla ñun ànd gësam hmm. grève wuñu pour xeex ay malade wala pour lool ay nit hmm. saa yi ñu yi nga xam ne dafa war a mun a am mooy urgence ak service minimum ci suñu kayit yëpp dañ koy bind. Ah, bis boobu ñaar ñaar fukki benn ci mooy grève bu 21 boobu la. man sama wàllu bopp am na benn hôpital buñ ma woo kooku ah, ci ci ci ci jëwriñu hôpital bi la bokk. Mhm. woo na ma buñ ma daal gis ñu fi kenn même kuy jaay mhm. bi amul kenn ma daal woo suñu naataangoo bi nekk foofu mooy Alassane bi mooy mooy régionalu Fatick moom mooy président de Gueusseum région Fatick waaw mhm. ah, ma wax ko na jëm woo ñooñu wax ni xel ni ñun bu ñuy grève ñun suñu dafa am service minimum ak urgence mhm. donc la fexe ba loolu ñu lijjanti ko donc pour vous dire que ñun saa yu grève dañu respect urgence ak service minimum. waaye est-ce tamit est-ce que tamit ñi doon grève nag euh, demuñu ba ëppal ci yëf yi. ndax loola bu fekkee kuy faj mën na koo def te jàkkaarloog ay nit ñoo xam ne ñi ngi soxla ku leen taxawu loolu tam jéggi na dayoo. non dégg man la man man sama man sama sama kuréel laa mën a waxal mënu ma waxal kuréel beneen dama bëgg nga xam ni man sama kuréel laay waxal mënu ma waxal kuréelu beneen keneen yeneen kuréel nag bu ñu ñëwee daal ci bokk waxuma ni def nañu wala defu ñu mm-hmm. waaye man sama suñu kuréel daal laa mën a waxal daal ni ñun daal suñu grève dañ koy boole sa ñun ak urgence waaye nag li am solo mooy Sénégal du seet li nga xam ne moom mu indi moo indi mbir mi dañuy seet mu mbir mi lan la jur. Mm. waaw donc te pourtant mënu nañ fexe ba mbir moom du am parce que bu fekkoon doon nañu waxtaan bu fekkoon ne parce que loi boo bëggee grève parce que personnel santé dafa am ah. mm. boo déggee ay France ñuy grève ak ay Malek ay réew yi nag ñuy grève nekk ni bari nañu même ci Covid bi sax am na ay réew yoo xam ne waajuñu ko de bi am barki démb waajuñu ko amul dara ñan ñoo ko waaju mooy ñi doon <laughs> jàppale ñi ñu teg loxo ci mbiram astu soxna ñooñu ñu seen grève waaw man dégg déggul déggoo man la man waxuma grève ñooñu man mënu ma ci wax dara mhm. man suñu grève daal li ko taxoon jóg mooy gouvernement bi signé suñu protocole d'accord Euh, bu signé protocole d'accord bu bare mu ubbi ay waxtaan ci payooru liggéey katu yi ñu loolu mu tax mu jóg mu nekk suñu plan d'action yooyu maintenant keneen nag bu indee benn grève bu nga xam ni daf ci boole lu nga xam ni bokku ci woon wala amul préavis mm. kooku ñooñu ñoo ci war a tontu man mun ma tontu si loolu. d'accord ñu wax ci jafe-jafe yi wérgu yaram bi tey ci Sénégal euh, négligence médicale moom lañ koy dégg léegi bari na euh, accueil bu bon itam daanaka booy na ci noppi askan wi loola euh, wax nañu jafe-jafe yi ba noppi càmbar nañu ko bokk na ci xëy na ñi ci dugg te koppar dong dugal leen ci ak yeneen ak yeneen lan nga jàpp ni tey moom la ñu war a def yéen ak état ngir mu indi saafara ci mbir mi loolu moom amul luñ ci waxul xanaa kay def bi moom matul wala def bi moo dul yemb hmm. wante bi affaire avant même euh, yi di am mais cent 1998 la ñu woote benn loi ba ñu woote loi bi nguur gi dafa seetlu ni moom hôpital bi mu tabax hmm. moom kontaanu ci que ñu fay liggéeyee kontaanuñu ci te ñu koy fréquenté tam kontaanuñu ci loolu moo waraloon ñu wote ñaari loi pour def hôpitaux yi ñu nekk ay établissement de ay établissement public de santé noonu la demee hmm. léegi nag bu ko defee aussi loi bi boo xelul ba pare am na ay taxes yoo xam ne jël nañ ko pour que li ñu bëgg li ñu hôpital bi mel ko mel ko mu nekk hôtel bu nga xam ne comme mu nekk hôtel ba après moo amee médecin ku ñu indi la fa nga am condition yi gën pour ñu faj la pour taxaw la wante nag li am solo mooy mbir mi dafa sooxe ci lu bari xoo sooxe na parce que ñi war a teew hôpital yëpp teewuñu ko maanaam dafa am lim boo xam ne dafa war a mën a am hmm. ci ay spécialiste ay médecin ak yu mel noonu lim aussi war am ci ay lal ay affaire soétas ak yu mel noonu hmm. lim yooyu yëpp dafay yemul ensuite hôpitaux yi ci boppam dañoo war a non seulement bari c'est vrai mais aussi war na mën a jege population yi donc loolu moo waral problème yooyu dañoo ba c'est vrai nag pays pays en en développement la ñu am na nag jéego yu rey ko kenn mënu ko lam-lame jéego yu rëy def nañ ko ci at yi weesu nii wante jéego yi li ñu rëy rëy dañoo gàtt ci euh, ak li nga xam ni moo fi nekk comme problème comme préoccupation loolu aussi gouvernement bi def ci am part de responsabilité parce que mënoo budget wu juróomi junni juróom juróom juróomi juróomi junni milliard Euh, ministère de la santé nga jox ko deux cent quelques milliards ñeent fukki milliards ak lu topp waaw mhm. léegi yi nga xam ni moom mooy vitrine du système bi nga xam ni fa la ñëpp jóg fukki milliards ak ak ak la woon ren la nañ ko pour ne fukki milliards ak mais buñ koy fukki fukki milliards ak juróom-ñeent la ñu wax ren dix neuf milliards waxte buñ ko defee tamit am na hôpitaux yu yoo xam ne waxuma sax personne yu fay liggéey mais pour nettoyer ko rek mm. ko déjà mi ngi noonu donc loolu def mais jéego si boppam dañoo cëkk par rapport ak li war a am ñi fa a nekk comme nekk ñu fa ak yu mel noonu mm. hôpital ni mu a defee comme war nee hôpital dafa nekk hôtel mais mm. hôpital mais hôtel da daal di fanaan mais mën nga nekk hôpital boo xam ne ñëpp dañu xëyandoo huit heures presque dix sept heures ñëpp dem nañ seen wala ñenn ñi sax avant kon gestion hôpitaux yi ci boppam tam moo moo moo soxe parce que bu fekkee da ngaa bëgg a am li ñu naan disponibilité des services de qualité mm. vingt quatre heures sur vingt quatre heures mais il faut que mu am ñetti mm. mais mais loolu hôpital ba léegi benn principal rek moo ko fi def en dehors de principal kenn def ko fi est que loolu jaadu na mm. hôpital nga war a rek ci suba gi ngay am paj paj mi gën. Ah. ngoon gi weekend moom boo fa demee. boo may ah. waaw. ah voilà mi ngi léegi nag ña fa nekk aussi seen payoor yi non seulement lim bi matul comme technicien mais seen payoor yi aussi cul mais loolu du expliquer lépp parce que am na ñoo xam ne tamit euh, Sénégal tan na métti métti na boo xam ne ba ku concours boo ubbi rek li ñu dem fa fu ñu dégg liggéey ñu dem fa am na ñoo xam ne ñoo ñoo jox nañu suñu biir mais euh, du caage dañoo bëggoon métier mi wala dañoo am yërmande ci doomu aadama mm. mais dañoo am diplôme rek xamuñu fu ñuy def wala am dem seen bàyyi wala seen seen seen waajur yi fayal leen ñu ñu nekk ay ay ay comme ni ko waxee ay ay docteur comme que ñëpp ay docteur lañ leen di wax mm. mais kooku nga xam ni dafa bëgg métier mu sonn ci bokk la koo xam ni moom dafa ñëw rek euh, pour romb rek presque dafa ñëw pour jéem a régler ay problème te bu gisee lu ko gën a sax bu dem yoonam mm-hmm. waaw donc loolu dafa am mais maasewul am na tamit ñu waxante dëgg am na aussi ay effort yu bare yu am mhm. parce que bu doon képp ku la nga dem kenn du fa ñëwati mhm. bu doon képp ku ñëw dee tamit kenn kenn kenn du la gis wante nag mhm. wante nag dañu xam ne aussi hôpital aussi comme que moom moo mujj de dee hôpital moom dafa nekkul lu nga xam ni lu lu war a jaaxal nit ki wante dëgg hôpital warul warul warul nekk lu jaaxal nit ñi yaa dégg c'est pas parce que nag nit deena na hôpital que kenn warul dee hôpital mm. <laughs> waaw dee moom hôpital moom dafa war a am mais nag nañu seet nit ñi nañ nañu dee dee ci hôpital mm. euh, fexe ba li war a am mat mm, nga xam ne ñëw na fa te foofu rek la yaakaar ñu fexe ba nekk ci condition yi gën mais loolu mi ngi ci li ci des nag question yar ak teggin la am na ñoo xam ne même bu ñu bëggee métier bi sax si boppam yaruwuñu amuñu teggin ñooñu moom bu leen yóbbu woon police noonu lañu mel nga yóbbu leen journalisme moom lañu mel foo leen yóbbu yu mel noonu. Mm-hmm. loolu dëgg euh, euh, dëkk bi moo moo xaw a soppeeku loolu. Mm-hmm. mayatu mayatuñu kenn cër. Mm-hmm. yaa ngi loolu dafa baaxul. alors ñu jeexal très rapidement ak euh, plateforme ànd gësëm ay négociation annoncé woon nañ ko fii tàmbali woon na sax diggante yéen ak état bi wante grève bi ba léegi mel na ni mi ngi wéy mënees na ci jàpp ne kon déggoo moom amagul. waaw xam nga dafa am ñaari mbir affaire Louga bi moom xëy na ñëw na rek daal di invité wu ci ci mbir mi ñu munte mu ñu ko bañ a fantal mais ñun suñu problème mooy euh, mënuñu euh, euh, fukki fan ak ñaar ci weeru ci weeru avril deux mille vingt et un maanaam le douze avril ñu déposé préavis de grève gouvernement bi woo ñu le vingt et mais te gouvernement bu la woowee boo ko joxee préavis de grève loi def ko tënk ci fanweeri fan trente jours francs pour que ñu waxtaan pour que grève bañ am donc fekk nag trente jours yi jot na grève ah munuñu munuñu fànq bi mais c'est parce que gouvernement xëy na moom moo bëgg grève mënoon a créer moo xam ne boo soxlaa dara da ngay grève ñu jox la ko suñ la ko signaler ba pare balaa ñu ko matal il faut nga grévaat pour ñu matal ko te buñ ko bëggee matal benn lañ ci def bàyyi ñaar nga wëlbati ko demande grève pour ñu matal ko dafa mel ni daal dañoo war a nekk ci si ci loolu rek waa grève négociation grève loolu gouvernement bi neex moom la nekk parce ne ci gën a mu ne ci gën a nit ñi ah, ñun ñaari ponk la ñu waxoon gouvernement bi na toll si benn bi mooy négociation dafay jeex mënoo négocier acte te doo signer protocole mhm. far yàlla nag tey ji woo nañu à onze heures pour ñu ñëw signer protocole bi loolu aussi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mhm. parce que li ci nekk ci protocole bi ay problème bu carrière presque personnel bi yëpp ak yenn problème fonctionnement la loolu moom vraiment daf na ñu neex lool lool lool mhm. ah, ñu aussi li ci des nag mooy mooy problème yi comme que gouvernement bi def na at yi yëpp mu ngi ci wax président de la République moo ci wax comme que commencé na di jukki ñenn ñu nga xam ne suñu ay ñu nekk dans d'autres secteurs mm-hmm. ñun tamit ñu ne tamit ñun tamit nag ñu jukkil donc mooy système de rémunération. mun nañ yaakaar gannaaw seen ndaje ak Abdoulaye Diouf Sarr tey grève bi xëy na jeex. waaw loolu mënu ma ko wax parce que déjà wane naa la ñaari ponk la benn bi kenn ci moom la ak service beneen bi ministère des finances la mm. donc loolu parce que boo réglé bi tam bee boo des mm. ñoom lan moo leen tere woon boobu léegi ñu réglé te mënoon na nekk parce que balaa ñii di jóg ñun jógoon nañu bu yàgg xam nga nañu réglé problème yi mënu mënu waruñu woon xaar ba jàngalekat yi jóg ñu réglé problème te bu ñu réglé benn problème il faut que ñu réglé yeneen donc si moom la loolu mën mënu ma wax ni dana dana dana kii wala danañ bàyyi wala dañ def leneen kuréel moo koy waxtaan incha jërëjëf Mballo Dia Thiam njiital alliance ànd gësëm secretaire général SUTSAS amoon nañu mbégte dalal la eh, ci matinalu mi FM tey jërëjëf. waaw man maa ngi lay jaajëfal eh, di kontaan lool si dégg ma woo moom mu nekk lu may rafetlu di leen ñaanal seen rajo bi jëm kanam incha allah. jërëjëf kon Anna Thiaw ñu delloo la lenge yi nga wéyal matinaal bi.